ayca jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na càngat làmb tàmbali na bàyyi jiili Père Birahim mbokk yi euh, ñu ngi leen di nuyu euh, fépp fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb mm-hmm. di leen jëfalaat bu baax a baax a baax waaye wéetuma ci benn yoon dama ci ànd ak sama papa sama xarit sama lépp muy Père Birahim Ndiaye ma koy jaajëfalaat bu baax di ko ñaanal gudd fan lool te ànd ak wér ak képp ku ko ko yéene Père Birahim maa lay di la siyaar waaw jërëjëf a'uuzu billahi min shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan hmm. maa ngi nuyu bokk internet yi nga xam ne ñu ngi safoo sa wasaare yëpp hmm. e, mu neex leen muy Sénégal ak bitim réew ak ci àddina foo xam ne wasaare nga fay rek hmm. ñu koy bëggee yëpp di ko seetaan ñu ngi leen di bëggee yéen tam di leen ñaanal weeru koor wi ñu dugg Mm. yàlla bu mu suñu mujj weeru koor amiin yaa rabbal yàlla nañ ko waraat yu bari yu ànd ak wér amiin suñu ko wooree yàlla na ko sama borom nangu amiin luñ ci juum yàlla nañ ko yàlla jéggal amiin lépp luñ ci ndee yàlla def lu baax yàlla na ko yàlla fulandi wesaare ko ci jullit yëpp te nangu eh, di ñaan ci yàlla wasaare it yàlla na ko yàlla yóbbu ca kanama kanama kanam di leen nuyu di nuyu euh, Bachir di nuyu Adama di nuyu Kaggu mm. di nuyu Ousin benn xale yi nga xam ne ñoom ñoo bokkal liggéey bi fii yëpp maa ngi leen nuyu di leen mm-hmm. ak kilifa gi nga xam ne moo géré mbir mi. Mm-hmm. waaw te. baabu baabu mi leen teguñu bii baabu maa ngi lay jox ndox maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. waaw nag maa ngi nuyu ñëpp daal. di kontaan trop nag ci toogaat ak giili waxtaan moom xam naa moom sax waxtaanam day neex parce que léeg mu sànni ma xeer. waaw ah, waaye nag xeer xeer yu ma dul gaañ nag la may sànni que moom sama doom la waaye nag xeer yu ma dul gaañ la may sànni wax dëgg yàlla waaw ah, waaye nag moom ma nangul ko ko rek ah, waaw laay doom ju baax la loolu ki la père Birahim sama papa fan dafa xaw a laqari deret ndax moom koor gi moom loolu laal rek mu def ko ay xuloo xuloo bu dul jeex ah man kay du ma xuloo waaye yéen a tooñ paa bi nag paa bi kay lu wax rek yéen a koy tooñ waaw xam nga benn lam du ah. yëngu. Ah. su tàngalee. Ah. ngeen seddal rek. dëgg la su seddalee eh, bu leen yéen amul leen a tàngal ci kanam waajur moom. aqul waalidayni moom. ni ko alquran waxee boo ko déggee. waajur fu mu waxee da war a tàng yow toujours ndox nga ci wetam. nu mu rek nu mu tàngal rek yow da nga war seddal. parce que seddal ba mooy sa galaaj mooy sa téere mooy sa lépp. waaw moo lay texel fii ñu jëm. Mm. fii ñu nekk nii moo lay xel fa ñu jëm. Mm. xanaa xamoo ne ndaw toujours ñu nga raawantee ci ngërëmal waajur. dëgg la moo tax xale yi damay dégg ak ñu may seetaan yëpp fonk leen waajur. dëgg la gàllaaj yu bari yëg téere yeeg béjjén yi ngeen di takk ak a def yëpp takk ba seen digg ak si fii takk say loxo ba mu ak si fii. Hmm. te amoo ngërëmal waajur du am dara. déedéet waaw mooy lépp. Hmm. ak jaamu yàlla gu sell. Hmm. yàlla ñu ko yàlla defal waaye ngërëmal waajur. yàlla ñu ko wax jaamu leen ma. da ngeen rafetal seen diggante ak seen waajur. doxalul keneen ci diggante ba. moo tax waajur moom kaf ree waxtaan seet bànnee xam lu mu bëgg nga di ko cay nga cay nga cay dox rek. Mm. loolu ndam lu rëy la. damaa yaakaar xiif gi sax moo taxoon mooy mooy kii. waaw xam nga da ngay <laughs> xale boo xam xam naa ne sa papa gisante wuñu waaye xam naa ne ku jubóog yow la. parce que noonu nga koy tooñee di waxtaan ak moom yooyu. waaye xiif bu fi metti boo xam ne bii. Euh, jar naa tàng di tàng amagu fi. Ah, wax dëgg yàlla parce que diggante bi ngay xëddee. Ah. ay six heures et demi. Mm. Euh, cinq heures et demi nga pare xëdd mm. ah sept heures nga piir nga taf mm. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne naaj yéex leen a xëdd waaye teel leen a dog waaw ah, kooku ay bari na yërmande ki leen aka dama sant na dama sant ne teel leen a dog a ah, yéex leen a xëdd mais teel leen a dog loolu la si am santaane mm-hmm. kon kay kooku ab dawal na yërmande ci li muy def waaw mu nekk loo xamante ne vraiment ñu ngi mm-hmm. ñaan yàlla yàlla nañ ci dugg ak jàmm ak mm-hmm. salaam génn ci ak mm-hmm. jàmm ak salaam. Eh, di ñaan képp koo xamante ne rek. Eh, yaa ngi ci réew mi wala bitim réew. Eh, kooru jàmm di leen ko ñaanal te di ci ànd ak yéen. tey per Birahim. li ma bëgg ñu waxtaanee ko mooy. fan yi dama xamoon a génn dem ci àll bi. parce que dem naa ci làmb Fatick. dem naa làmb Fimela. dem naa làmb ak. Adama dëkk bi mujjee dem. Ndangaan Samb. Ndangaan Samb mu nekk ay dëkk yoo xamante ni yëpp dëkk cosaan la. Mm-hmm. waaye dëkk la dëkk yu bëgg làmb. Mm-hmm. mais ba mu demee Pierre dafa am benn làmb ju amoon arène nationale. Mm-hmm. dox ci diggante Super Jamono. ak capitaine Dina. làmb ji jeex. ma gis ci image yoo xamante ne lu ñaaw la. ay xale mer. jël daj yi nga xamante ni. waa làmb ñoo ko moom. chaise yi nga xamante ni dañ koo defar mm-hmm. taaru làmb mm-hmm. pour képp koo xamante ni da bëgg di di seetaan sport bi di làmb mm-hmm. nga ñëw seetaan nga gis xale yi di ko daaj bi nga ko gisee ban yëg-yëg nga ci am waaw bi ma gisee euh, naqar bu metti laa ci am mm. naqar bu mettee mettee metti laa ci am parce mm. que bu ñu nee tey jii làmb mosul am place fu ñu koy defee dañ ñenaa abal stade football yi ñu abal Demba Diop wala amitié Mm-hmm. wala Iba maar Diop fa ñuy aan bale mm-hmm. yëpp ñu dañu ko abal bu ñuy dem di dem ba président ñëw fi tey daal di ñuy tabaxal arène boo xam ne dañuy arène nationale boo xam ne daf ko tëgg pour xam ne ne làmb suñu cosaan la mm-hmm. mu jël ko dugal ñu Matar ba ñu di ko nuyu di ko gërëm di ko sant ci mandaam la ñëwee dëgg la kon Matar ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la ñaanu gudd fan ak wér waaw dégg nga waaye kon tey ji loolu bu amee ñu war koo def fierté mm. war koo ñoŋal suñu bopp mm. ñu mu tilim ñu mu salte salté waruñu am dara nga xam ne sax bénévolement sax waroon nañu woon tey ji ñu ne tey ji euh, stade bi tilim na waaye écrit sàngam tey ñoo ayee nettoyé mm-hmm. ñoo ayee nettoyé quartier bi bénévolement mm-hmm. beneen yoon beneen écrit jël décision ne ñooy nettoyé tey mm-hmm. stade bi tilim mukk ci àddina dëgg la lu fa yàqu dañ naan écrit sàngam tey ñoo war a defar. Mm-hmm. bu tey ñuy defar bu taal doon stade a baax. Mm-hmm. nettoyer toilette yi nettoyer sa bale ci kaw euh, kii gradé yi. Mm-hmm. lépp dañ ko war a ay ayloo bénévolement di ko def parce que sunu alal la ñu defal. lu ñu mosul woon am la am. mooy arène. nga tey combat am histoire am ñu dem a dem ba ci biir tey jii dégg nga ñaari mbër bëri te bëri sport noonu rek la. football beeg karaté beeg bëgg lépp loo gis. ñaara koy def. wala mbooloo koy def. benn mboolem dañuy gañe benn bi ñenn ñi am ñu perte. Mhm. ñenn ñi mhm. su fekkee ne ku ñu gañe nga mer yàq mais kon loolu suñu gàcce la. dëgg la li ñu def ñoom gàcce gu rëy rëy la. Mhm. te loolu maa ngi maa ngi interpellé Bira yi nga xam ne mooy président bi. moo fi remplacé docteur Alioune Sarr. tey jii ci mandat bi def lii wala jël sanction yi sévère. ba ëllëg si biir keneen xalaatam wala ko di ko def. waxuma ko pour soxal waxuma dara waaye. Euh, lii dina yar ñii di ñëw suba. parce que waaye bu ñu ko seetaanee mu sedd nii ëllëg si bi lu gën a garaaw lii dina waaw te loolu rafetul mm-hmm. waa rafetul suñu image sax mm-hmm. ñu ne suñu sport national kenn daan ay xale di dajji seet di yàq di stade bi ñu defar ba mu rafet mm-hmm. ñu di ko loolu lu ñaaw la man dama ruus sax nit di ko nettali dama ruus sax ñu di ko wane ci télé ñu di ko gis wallahi taala mais père mu doon loo xamante ni tey mbër yi xam nga mbër yi identifié nañ leen xam nañ ni. waaw mii mbër sàngam la. ak mbër sàngam ak mbër sàngam. Mm-hmm. am na ci mbër yoo xamante ni sax daan dal na seen kaw. Mm-hmm. mais ñi nga xamante ni ay ay supporters lañ. Mm-hmm. ay supporteru mbër wala fans club bu mbër. ñoo buddi ay siège sànni. yàq te stade bi am na caméra surveillance. nga yaakaar loolu mënuñu leen identifier benn par benn jàpp leen li yoon wax ci ci ci loolu ñu ñu bàyyi ko yoon. mën naa nekk. déggoo may la xupp. yar bu jëkk ba day dal. dëgg la sa xam nga yooyu yolof. Mhm. xup mhm. yar bu njëkk ba day dal. dëgg la waaye bu ñu ko maslaa doomi diw la maay doomi diw wala sama kii kat sama mbokk la waaye di ministre diw mooy ni yaayam. Mhm. wala mooy baayam wala kay nangam nangam lu gën a garaaw ay amaat nii. dëgg la dëgg bu rekk dëgg dee dëgg rek la bu doon doomi Birahim Yaay ko def sax. dañ ko yar. bu doon doomi Birahim bi nga xam ne mooy président bi sax nañ ko yar. dëgg la boo lëggee dootu ko def. Mhm. dañ naa diw la jiiri mi kan la mu def wala nangam. Mhm. tey jii ci lii. Mhm. normalement dañ ko war a yar bu ëllëg si biir koo gis xam ne kii de yar nañ ko. réew yu tubaab yi li ñu rawee loolu yëpp dëgg la ñu rawee. ku jaar yoon ñu daal ku jaar yoon yoon daal sa kaw. am réew nag bu amul loolu amul ku jaar yoon ñu daal maslaa bi recommandation ba maay doomi diw ak diw sama jarbaat laak diw ñoo bokk lii ak sama frère laak nangam ak nangam. Eh, kooku de bàyyil ma ko sama nit laak yooyu. dafa juum nangam nangam wallaay réew mi dana dana dana yéex a tegu ci yoon maa la wax lii. Mhm. mu doon loo xamante ne vraiment lu ñuy ñaawlu lu la parce que saa su ne rek ngay mhm. gis xale yi di wane leneen loo xamante ne bokk. boo demee ba ci ba ci stade bi. Mhm. ñi ñi miin arène nationale yàgg faa am na ci toilette boo xamante ni boo demee ci lavabo bi. da gis euh, ndox mi ni muy fiite mu ngi tuuru pendant un mois yoo xamante ni bu ngi tuuru mais jëluñu ci benn. benn benn mesure saa yoo duggee rek da ngay gis mu mel noonu. mu mm-hmm. mel ni stade bi li ñu koy moom di moom ñun ñoo ko war a defaroon suñu bopp Père Birahim est-ce que jotuluwaat ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk ci làmb surtout ñu changer jikko yi am comportement bu baax ci ci ci làmb surtout ci ci ci arène bi. gis nga jiri mm. dangeen di xale rek. Mm. waaye ñun ñu yàgg ci làmb nekk ci plus de quarante ans. Mm. bientôt cinquante ans ñu ne ci làmb. Mm-hmm. dama ne la Iba bii. Mhm. bi ñu koy defaraat ay soixante quatorze ak yooyu. dëgg la. boo fa ma saa dugg palais la. Mhm. ni mu ko defaree. sangu la sangukaay yëpp dañ ko defaroon fépp mu nice. Mhm. def ay miroir ak lu nekk fa amoon. dëgg la mujj gi amoo foo teg tànk ndax salté. ñu jógee fa dem Demba Diop bii bi mu door a pare bi ñu ko defaree boo fa duggee da ngay waaru. ni ñu ko defaree oon mais boo fa demee da nga xoolal sën bu ñu sànni mbali sax ko gën a set. wallaahi lu ñaaw la. lu ñaaw la. dégg amitié ñëw. ñun ñi fa lañ door ak ñoom Amourage ak ñoom Double Less ak ñoom Moustapha Gueye mii maa ngi ko ñoo leen di nuyu de passage. Hmm. ak ndam si yàlla docteur Faye ñooñu parce que man équipe nationale dañ ma daan jël toujours regroupement dama daan bokk. Hmm. waaw dama daan bokk ci ànd ak ñoom ci entraînement yeeg yooyu quoi waaye dama ne booba taam sa kii vestiaire boo dugg. Hmm. tuwaat kàlla mën nga faa lal sa basan tëdd. wallaay waaye ba ñu fa demee quelques at benn at ñaari at. boo ci duggee sàcc nañu seetu ya seetu yu rafet dinañ ko. haut-parleur yi. lépp amoon haut-parleur mhm. nga xam ne booy wax bu ñu wax ñëpp lay dégg mhm. haut-parleur yi sàcc nañu leen mhm. ak micro yi lépp jël nañ leen ba mu seet wicc wekk nañ seet yëpp yóbbu robinet yi nga xam ne moo newoon ci law booy sax wekk nañ leen yóbbu kon fu nar di baaxee wallaay waaw léegi bu fekkee ne ñiy defar ñu ngeen di defar ñay yàq toujours ñuy yàq ñiñ koy jëkk dénk sax ñooy jëkk a yàq dégg nga kon dañoo ko mbër gi dañoo dal ci ko mbër yi rek mbër ñoo ay tey waaye keroog bi ñu stade bi bi ñu fi gagné Sénégal. Mhm. ñu suspendre ñu toj stade bi yàq fi loo xam ne nii ba FIFA ah, ah, ba FIFA euh, interdit football fii ci euh, aj ko ba ñuy football ay Côte d'Ivoire ak ay yeneen dëkk yooyu loolu mhm. fekke wu ngeen xalaat. wala bu ngeen ko fekkul dégg ngeen ko. Mhm. pourtant dañu war a mbër de. ñoo war a seen bopp. ñun ñoo war yar suñu bopp yar suñuy doom. feeg yar wuñu ñun suñu bopp yar suñuy doom. walaay Sénégal pour mu tegu ci yoon dina jafe. dëgg la. lii fi am ci mbër yi dina am ci basket bi man basket gis naa seetaan naa ko ba mu yàgg xeex bi am ñu am ñu yenu chaise xeer yi daw tàcc ci ndàngam basket fii ci Maris Ndiaye maa ko gis te ku ñi may wax seetaan ku ci seetaan gis nga loolu mhm. wala loolu te loolu mbër neew fa ay basketteur fa nekkoon mhm. gis naa ko ci football bi mhm. gis naa ko ci le sport bu ñu senegal Sénégal dafa mënta muñ defet dëgg soo gañee nga kontaan nga suñ la gañee nga nga di yàq loolu loolu loolu loolu gouvernement bi da cee war a jóg. Mm-hmm. dañu bañ cee indi benn masla mm-hmm. loolu mooy yoon mais stade yëpp rafetoon mais gis nga yëpp yàq nañ leen. arène nationale bii nag nga xam dañ ko jagale bëri. Mm-hmm. li wax rek. war nañu ay aéro écrit bu defar tey beneen mois ñoo ne yor entretien bi beneen yoon keneen yor beneen yoon keneen yor di ko defar ba mu rafet. ba ñu ñeeñu ba ñu xam ne ñun bëri yar nañ waaye loolu la amul. parce que dafa nekk loo xamante ni <coughs> euh, waxoon naa ko ci Lady Tigre bi nga xamante ni euh, suñu papa Bécaye mbay Moustapha Guèye mm. invité woon nañ fi mm. ñu ne stade bi Chinois yi dañ ko tabax ci seen i jikko mais mm. tabaxuñ ko ci suñu jikko parce que loolu yëpp séntu woon nañ ko ci seize yooyu ñu def parce que lan moo tax ñu en chaque fois rek Père Birahim ñu ne ñun ci gradin lañ war a toog parce que ñun waruñu toog ci seize mel ni ñuy toog ci chaise yi dañu gën wala dañu gën a bëgg lu baax wala dañu gën a set looloo yoon na ni saa sune rek kon suñu jikko yi ci boppam moo nekk loo xamante ne war nañ ko defaraat surtout ci kër yi balaa ñu koy yóbbu feneen ndax loolu bokk na ci loo xamante ne image du image yu rafet. Mm-hmm. yu mun di wane ci réew mi nit ñi di ko gis. mais ñaaw na trop ci njabootu làmb mais ñaaw na trop ci ñi nga xamante ne ñooy mbër yi saa sune bu combat da ngay dégg ñaa mbër yi waxal ak say encadrement waxal ak say supporters mais ñaax yooyu mbëri dañ koy def mais du dara du mujj fenn loolu léegi ban gis-gis moo ci am. waa gis-gis bi mooy. Hmm. ñun ñooñu wax dañoo xeeb ñun dañoo xeeb. dañoo hmm. xeeb suñu bopp. Hmm. ñoom chinois yooyu. amuñu benn martaba bu ñu am boo xam ne sénégalais amu ko. dëgg la lu ñu nañu ko ñun. bu dem njàng dàqu ñu ko. dañoo ëpp fulla dafa ñu ëpp fayda gën ñoo yar seen bopp. dama la gis nga yàlla loolu nga dem màkk. yàlla na la fa yàlla yóbbu ak képp ku demul. gis nga boo demee màkk tey ñu du ñu xëccoo euh, kaar. Mm-hmm. gis nga bu ñuy bu ñu ziar. Mm-hmm. groupe la ñuy ànd. du ñu buuxante du ñu ba wax kenn bu leen ba wax. Mm-hmm. ñu ànd seen benn groupe bi dox ndànk ni def seen tawaaf. bu dee kaar bi ñëw na gaari nii bu kaar bi ñëwee taxaw nii. xam nga lu ñuy def. kenn ki jiitu day ñëw dugg dem au fond toog. keneen ki ñëw topp ci kenn toog ba kaar bi yow toog ñun nag xam nga nooy defar. da ngay daal jëkkante bunt bi daal laal sa genn kaala. waaye daal sa mbaxana wala nga sumi sa mbaxana teg ne xaaral ma jàppal jiili place fii te kenn toogu fa fee ca kanam mhm. kenn toogu fa de waaye comme man ci buntu bi laa toog nii mhm. jiili laa bëgg mu toog sa ma tegal ko sama portable fu mhm. waxee ma ne am na place ñoom xamuñu loolu ñoom kii dëkkandu ko na dem ca fond ba keneen ki ñëw topp kaar bi fees mu départ beneen ñëw duñu gaañante doo gaañ duñu la gaañ loolu nag judduwaale wuñu ko da cee yar seen bopp dañ ñun dañu war a jël suñu bopp. fi mu a ji dañuy daje moom nga yor sa kaasu café hmm. naan ba pare sànni maa la eh jiiri foral. Hmm. lii baaxul foral def ci pour da nga koo téye ba gis poubelle dugal ko fa. Hmm. wala nga lekk sa wala nga lekk sa dara yor sa benn dara loo xam ne sa papier boobu saa war a sànni da nga ko téye ba gis poubelle dem sànni ko fa. loolu nag judduwaale ko. dañ ko war a yar. jàngale ko ci école yi jàngale ko ci dégg bi nit ma ñi ma wax dëgg ma ñi ma la wax dëgg. waaye bu ma naanu sànni nga sànni ci suuf loo may wax. nga ma papa père père xamoo sama tur xaw ma la de. Hmm. nga dama père doo for kii ba gis benn mbari teg ko fa. ma ne booy bi mooy yara ko yow man may sa moromu baay ah hmm. di sa moromu waajur nga di ma fa defal lii. du ma xam ne kat jii li muy kat yar na ma. Hmm. wax na ma dëgg te lii ma wax mooy yar du ma ko def. dama naan rek loolu la laay réagir réagir boobu yooyu moo baaxul ci ñoom. te loolu feeg dindi wuñ ko ci Sénégal gi billaay wallaay te Sénégal dina yéex a dox. bari na ci te loolu nag moo dund suñu sport moo dund suñu àddina mhm. moo dund si lépp parcelle ñun da gis koo xam ne kii day génn këram mhm. dëkk ci benn étage doy ci ko amul waañ ci buntu këram fi muy toggee mhm. buy dem waasiti jóori yëpp da koy def ci benn mbuus bu dee ba ci génnee ci koñ bi bu dee du xaar oto mbali de wala mu powel day ñëw teg ko sa bopp koñ waaw tegal la ko sa buntu kër sa buntu kër wala sa bopp koñ yow man man ba tey ñaata mbuus laa fekk sama buntu kër yoo xam ne maay jël def ci poto mbalit bi ba fi mu ne âge bi ma yor nii boo ta mbalit ñëwee maanaam mbalit bi ñëw na mbalit bi ñëw na de su fa xale yi nekkul maa koy jël yóbbu léeg-léeg ma génn ay ni dogale ma ne ma père doo fi yóbbu mbalit may leen noonu loolu du dara sama soxna bu amee jot yóbbu ko bu jox jot ma yóbbu ko xam nga yooyu yëpp ay éducation la yoo xam ne ñun ñoo ko def suñu bopp la bu ñu ko deful suñu bopp yar suñu bopp mm-hmm. ah wallaay Sénégal dina yéex a dox dana yéex a dox dana yéex a dox lool mm-hmm. président bi koy ñëw bay régler loolu mun président munu ñoo yar déedéet. mënuñoo yar. déedéet dañoo man a yar suñu bopp. Mhm. te dafa law ci sport bi law ci fépp nag. Mhm. loolu nag moo fi war a jóg. waaye ñooñu naan woy suñu yi est-ce que dañ ñoo chinois yooyu la tax ñoom dañ ko liggéey seen jikko waaye liggéey ko suñu jikko. Mhm. dañ ñëw ne ñii kat xamuñu lu baax bu ñu leen defal lu baax. seetal li ma wax. yow dañ laa sant pour liggéey liggéey lu baax rek yow bi ñu liggéey lu baax jóge seen dëkk liggéey lu baax sàmmal liñ la jox rek. parce que mbu ma ñëwee tey xotti pis bu rafet ñëwal la mbu mu rafet nga solu ba jekk nii. Hmm. ah mais pis bi yaa koy toppatoo. dëgg bu tilimee nga fóot ba mu set. Hmm. di xool fi ngay toog. Hmm. bu sa yére du xool ni mu da boo paree wàcc sa lem ba mu jekk ta. waaye moo la joxe pis bu baax nga dem yàqal ko sa bopp ko def. waaw yaa ko yàqal sa bopp waaye waaye lan ma waroon jox jox na ma ko. ah waaw la a jox jox naa la ko. man bëgg nga lu baax woo nga ma jóge sama réew rek liggéeyal la lu impec. Mm. loo xam ne fu ñu ko wane mu rafet. Mm. ah léegi nag dama ne kii ni mu defee lu baax li man dama koy gën a baaxal mooy entretien ba mu set lépp tegu ci yoon defaru ba daangoo. Mm. moo tax li ma wax sànq naa ko répété waat mooy écrit yi sax ñoo waroon tey jii ne écrit tàngam ñoo yor entretien stade bi tey semaine bii. Mhm. dimanche bi ñoo ñoo war a defar wala samedi bi ñoo war a defar. Mhm. nettoyé ba mu dem beneen yoon keneen yor te duñ leen fay dara. pour ñu jox. Mhm. waaw yàlla jox ñu ko. kon tey war ñu ko yàq. jërëjëf message bi am na solo trop mbokk yi dégg ngeen leeral yi nga xamante ni Père Birahim indi na ko ci jikko yi nga xamante ni euh, ñun waa doomu réew mi war nañ ko mën a waxtaanee ndax wolof daf ne sa gémmiñ xasaw na sa doomu réew mi wax tey ñun ñëpp. benn lañ amul kenn koo xamante ni tey war naa mën a wax sa morom loo xamante ni tey tegginewul wala jaarul ci yoon waaye lépp a bëgg làmb jag bëgg yi nga xamante ni dañ koy jiiñ làmb saa su rek duñ ko gis ci ñoom parce que bari na ñoo xamante ni ñu ngi ci réew mi te duñoo contre làmb waaye buñ ko contrôler li tax ñu contre ko mooy violence yi nga xamante ni ñu ngi koy gis ci làmb ji ñu ngi koy gis ay moroomu mbër di ko def seen moroomu mbër te làmb sport boo xamante ni rek ku ci nekk mën na cee jariñ Euh, may jaajëfalaat bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ñenn ñi nga xamante ni tey dañuy woo Père Birahim di di ko di ko ñaanal ñenn ñi nga xamante ni bu ñu gisee numéro Père Birahim ci écran bi vraiment li ñu li liñ ci bëggoon ñu ngi koy gis ci ñoom ñu ngi koy woo ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñu ngi koy wax li nga xamante ni cofeel la ñu am ko ci moom euh, ku ci mel ni tey am na ci sëriñ boo xamante ni. mu ngi tudd euh, euh, Serigne Idrissa Ndiaye sa ak Daawar Lo moom it ma nga ca bi mm-hmm. moom it nekk koo xamante ni dafay bëggee Père Birahim bu baax a baax a baax mm-hmm. moom it bari na ci loo xamante ni sax nee na ma incha allah rabbi dinaa dina dinaa ci taxaw ak yow ak Père Birahim euh, ku ci mel ni Serigne Mor Serigne moor moom it ñaankat la moom it ma nga fële ca Malika barki démb woo na ma ndeysaan am loo xamante ni defal na ma ko vraiment ma koy ñaanal bu baax a baax gudd ak wér Euh, ndax geste boobu dafa am solo tey woo la téléphone foo nekk maa ngi fi ah xaaral ma dugalal la lii vraiment loolu lu ti doon yëg-yëg bi rek moo ëpp solo lépp ah, am na ci koo xamante ni dofu maam xalifa ñas lañ koy wax. Mm-hmm. moom it ah, sër kilifa la ci sëriñu Niassène ni la bokk moom it nee na ma am na teraanga boo xamante ni bëgg naa la ko yeggee yow ak Père Birahim Ndiaye. Mm-hmm. waaye incha allah rabbi maa ngi Kaolack waaye dinaa fexe ba ngeen jot ci. moo xam ni Père Birahim nit ñi am nañ ko ci yow mais père ba démb bi ñu ndogoo ba pare dama am lu ma jom muy ngaala ngaala ngaala jéen ngaala jéen waaw ngaala xale bu baax xale bu yar wala maa woo hmm. ñu waxtaan lu bare bare mu ne ma damaa wóor suba ba ngoon ko mu ne ma ma ndogu ba pare julli naa timis julli géewe bàyyi jili seetaan naa say émission yow ak père mais li ma lay ñaanal ci àdduna mooy yàlla nga ma mujj ci kaw suuf yoo tata mu nekk ñaan boo xamante ne wallaay ndeysaan nit nit mun ngaa bokk waaw xol bee fees ndeysaan ndayet baay sax te ñaan boobu du du du la ko waxal mu doon loo xamante ni daf maa touché trop père ndax bi ma waxee bi ma doon dama doon dox dama damaa mujjee toog ndax vraiment rëy na ci man trop trop trop trop ñu leen wax rek ñoom it ah, ngaala yàlla na suñu borom guddal sa fan lool te nga ànd ak wér ah, lépp loo ma yéene yàlla na mu ci ëppale ndax vraiment xol tooy na trop ak ñi nga xamante ni dañuy woo Père Birahim di ko envoyé message di am cofeel ci moom di ko ñaanal saa su ne mënuñu leen a fay ndax saa su ne rek gis nañ cofeel gi nga xamante ne am nañ ko ci ci ci wasaare rawatina ci Père Birahim muy mel ni Modou Sarr moom mu ngi nekk reen moom mu nekk koo xamante ni dafay bëggee Père Birahim ku mel ni Modou Fall moom mu ngi nekk Italie moom it mu nekk koo xamante ni ku baax la ma nga Italie mais moom it day mm. bëggee peer Birahim Ndiaye. Mm. ku mel ni Cheikh Diouf. moom ma nga nekk Espagne wasaare it boole mm, dañuy wasaare dara doon ndax ndax képp kuy bëggee Père Birahim rek wasaare la ko seetaan. ku ci mel ni Cheikh Diouf Cheikh Diouf nag. moom bokkoon na ci entraîneur Modou Lo yoroon ci bopp. moom it dalay bëggee bu baax a baax a baax moom it woo na ma. woo na euh, ku ci mel ni Khadim. xaadim sëy xaadim tamit moom it mu nga Espagne ku moom it euh, da lay bu baax a baax mm-hmm. ku ci mel ni Modou Anta mm-hmm. moom it daf lay béggee bu baax moom it euh, da lay da lay da mm-hmm. ku ci mel ni Thierno Diop moom mu ngi nekk euh, Malaga Malaga Espagne moom it da lay bu baax a baax a baax ku ci mel ni Cheikh Diouf moom it mu nga nekk Espagne sa Saragosta moom ah. fa la nekk ah. Ah, moom it day bëggee Père Birahim bu baax Cheikh mm-hmm. Diouf waaw ku ci mel ni Souleymane Souleymane nag moom mm-hmm. Souleymane sàll la tudd Mauritanie la nekk ci dëkk bu ñu naan mm-hmm. ba ba baaba baaba baaba lan baaba Ali baaba Ali la nekk waaw moom it da bëggee bu baax moom it mm, day bëggee waaw day mm. di bëggee wasaare di wax ni rek saa su ne li ma doon wax rek démb ak bërki démb loolu laay wax tey Père Birahim euh, daf fi nekk kilifa boo xamante ne vraiment dafa mat sëkk li mu doon euh, tànqamluwul kenn xamewul xale bu ndaw ak xale bu mag euh, moom ñëpp la boole ñuy ñuy ñuy benn ñu koy ñaanal rek gudd fan ak wér numéro Père Birahim moom saa suñ defatee émission gis ngeen mu ngi noonu ci bar écritel bi ngeen ngeen woo ko ñi nga xamante ni dafa am teraanga bu ñu bëgg a defal Père Birahim boo ko wooyee di ko jot te incha allah rabbi lépp loo ko bëgg a defal boo ko defalee defal nga ko wasaare defal nga ko bàyyi jiili defal nga ko képp Père Birahim lan ngay wax ci loolu. waaw mais di ci kontaan rek. Hmm. di kontaan torop ci nit ñu baax parce xam nga wax jafe na. Hmm. dégg yombul. Hmm. te wax ay nit kontaan ci yow ba di la woo. sant ko yàlla rek. dëgg la parce que mënoon ngaa wax beneen waxu tojaange boo xam ne bii kenn du la bëgg a jege. dëgg la te loolu lépp tamit musiba la. parce que làmmiñ wax moom bal la boo xasee génn rek mënatoo ko téye. wallaahi wallaahi. mooy gërëm ñoo ñëpp nag ak ñi nga xam ne jotuma jàpp seen tur. Hmm. mais sama whatsapp a ngi nii ñu bari lañ may woo. Hmm. guddi bëccëg heure bu ne lañ may woo. man nag sama portable du ko tëj. Hmm. parce que gisuma lu jar di ko tëj. xanaa ma nelaw. Mhm. mais ku ma yooyu bu ma gisee naa la woon yow yow jàmm sant yow. Mhm. soo ma laajee lu ma xam ma wax ca lu ma xamul ne xaw ma ca que addina noonu la quoi. Mhm. du ma teggin kenn du ma toroxal kenn. waaw parce que addina noonu la quoi. ma sant leen gërëm leen. trop et eh, yooyu ngay wax nag da nga baax rek waaye parce que addina am na teraanga yoo xam ne bu la ko yàlla defalee ñàkkoo dara. te man fi ma toog nii. Mm. damuma tiitoo waaye ñàkkuma dara. dëgg la Ndiaye. alhamdulilah ku sant yàlla ku sant sama ñaari waajur. sant yàlla sama doom yi sax dama leen di wax ne man. Mm. ku gërëm sama ñaari waajur la. dëgg la Ndiaye. parce que teraanga yi ma nekk fii tey mënu ma fi woon surtout fi woon ëpp ma fi woon def fi lu kenn deful. Mm. waaye ñu bari sax carrière bi ñu defuma ko. waaye fu génn ñu teral ma loolu doy na sant yàlla. maa ngi sant samay waajur bu baax a baax. Mm, mm. di ñaanal waa wasaare it. Mm. yàlla yóbbu leen ca kanam ak kanam ak kanam. ni tax ñu xool ma ba xëcc ba boole ma ci seen biir. Mm-hmm. yàlla bu ci gis dara lu ñu rëcc. amiin jaay yàlla mm-hmm. ci gis dara lu ñu rëcc. Mm-hmm. ay ndaw ngeen samay doom ngeen. samay doom samay sët sax laa wax. mu ngi ñoo ci ne. dëgg la kon tey ñaan kontaan trop laa def. dëgg la Ndiaye. di gërëm biram ndaw ndoy ku mel ni moom. dégg nga sama xarit la ñoom mu daaw. Mm. dégg nga ku mel ni ñoom kii dem euh, Serigne Kane mm. ñoom Modou Mbéri Sey mm. waa Wasaare waa kii waa sa kii nu mu tuddee sunu association bi association Sage les sages de la lutte Sénégal bi Moustapha Gueye di ñaanal Moustapha Gueye yan bi na ko oyof tooy ci moom yàlla jàppale ko ci parce que mu ngi ciy bay waaram di gërëm Pape Konaté bu baax a baax a baax coordinateur boo xam ne mucc ayib waaw di féliciter tamit sunu doom ji nga xam ne moo am bàyyam ci ñun la bokk jéen kayre mm-hmm. mu daan jël bu rafet bëre bëre bu rëy mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla mottali carrière defar ko carrière bu rafet mm-hmm. na gën a góorgóorlu rek te te dégg ndigal te topp ci ginnaaw waajuróom rek waajuróom tamit li ma koy wax làmb des koy bokk ak mbër Mm. boo bëggee mu yaatu dañ koy bokk. Mm. bañ ko bokkul rek day xat. Mm. te bu xatee mën na laa faraloo. parce que boo indi kii indi keneen indi boo rek ba fekkee affaire bi yaatu. dëgg la du noonu. moo tax ñu ne ak mbër des koy bokk. kon nag yàlla na ko yàlla defal sutura. amiin moo daan te tamit maa koy félicité moom it làmb noonu la ku daanu. waaw daan daal buñ ko daanee tey loolu may gërëm ñëpp daal mm. ak ñoom Bamba Sey France basketteur bi nga xam ne bii moom it ci basket daan yëngu mm. doon ci international nekk France di sama jarbaat mm. di mbokk di lépp and ci yokk nag tey sama xarit Mhm. sama jarbaat moom mhm. jarbaat la sax ci man. Mhm. ñu ko am sa tasaw Sidibé. nekkoon fi ministre ku ne xam na ko. waaw ñëwoon na kër ga dem ba seet si ma. ànd ak sëram. waaw nee na ji bi saw seet si ma ma kontaan lool. dëgg la waaw ma kontaan lool di ñaan carrière am it li ci àddina moom moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. xam naa du ñàkk bi sax nga ànd ak Adama ak. en dem waxtaan ak moom. ci këram seeti ko ngeen waxtaan ci. wasaare loolu tamit dinaa ko. sagal si dime waaw waaw sama yaay la waaye xamuma. waaw ndeysaan sama yaay la waaw ndeysaan ngeen dem xamante nag. waaw parce que nit ku baax la sama mbokk ma nag ñoo bokk ma yaayam ñoo bokk mel na maam. ndeysaan waaw fan nday jaw ko jur nday jaw fan ñang ibaa ko jur. dëgg la ibaa ñang ma ko jur nag ak xuja ñang mi jur sama baay ñoo yaa xam ñang. la waaw kon nag mm-hmm. ak ñoom laa la saar seen yaay. Mm-hmm. Mm-hmm. kon nag xam nga mbokk la xarit la lépp la daal. wallaahi dëgg la may ñaan yëpp daal jàppale ko. Mm-hmm. may ñaan groupe yi yëpp ñëpp. Mm-hmm. ko ñaanal nit ku baax la. incha allah waaw. ngeen jëf mbokk yi euh, loolu lañ leen indiloon tey ci jàngat làmb Baye Djily Père Birahim mm-hmm. dina ñëw ci écran bi léegi incha allah rabbi indil leen combat bu mag waxtaanee ko Père Birahim joxe ci li nga xamante ne mooy xalaatam ñu leen di jaajëfal bu baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew làmb jërë ngeen jëf ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci yi boor ak ci yëley boor bàyyi fàtt njaay nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg